nit dem nit sa ambition sa c'est extraordinaire donc ñiy saaga moom nañu continuer saaga sama yoon newul ci donc wax bari ay fen ay gars wax ba man ak tas nañu fait bi na muy fen wu Sénégal ñëpp manko pour indi dama jàpp ni plainte Mame Mbaye Niang bi mu def Ousmane Sonko mënees na ko régler ci waxtaan entre avocat Mame Mbaye Niang ak avocat Ousmane Sonko. atte nit ak nit mooy li mujj adduna bi dafa dépassé loolu tey boo di ma bay pour diffamation dañ lay teg teg ki ki la fa indi na la kii nee na da ko diffamé mun la waaw ñun la yow est-ce que mën nga def démenti wala est-ce que mën nga démenti mooy nga ni li ma li ma waxoon du dëgg wala est-ce que mën nga def rectificatif maanaam nga wax ni da nga juumoon li nga def danga nga juumoon mais war nga ko mën a jënti wala nga def wala wala ñu ni ki ki ki la indi foofu ñu ne est-ce que mën nga def mise au point maanaam est-ce yow mën nga leeral partie boobu ngeen ngeen ngeen juboo ci benn texte bu ngeen di publier fa nga fañ ko waxe woon fa wala fañ ko binde woon ñu publier ko foofu bu ngeen d'accord rek affaire bi jeex pourquoi Sénégal ñu jàpp ni lépp tribunal moo ko war a régler comme fukk ak Sénégal yi ak ñeent dañu faatu faaw ñu leeral problème Ousmane Sonko ak Adji Sarr leeral boobu nag dafa war a ci charte ci droit warul doon mukk mukk prétexte pour daj wala génne adversaire politique Il faut il faut mu c'est-à-dire dossier boobu dafa war de toute façon parce que mënu fi def dégâts def ci réew mi mais leeral boobu nañ ko teg ci droit ak ci yoon dëgg ci dama Macky Sall position pour 2024 parce que tension bi yëpp pression bi yëpp am ci réew mi lan tax parce que position Macky Sall moo leeragul kilifa même communicateur traditionnel yi nga xam ne mën nañoo wax lu baax ñoom ñépp dañoo war a taxaw jéem a xool li ñuy def ba joyanti réew mi ba mu bañ a àgg ci musiba